waaw loolu yëpp looloo ko waral faa yooyu noonu rek rectifier di ko rectifier parce que làmb dafa metti da ngay préparer ay combat ay années parce que ñun dañuy ñun nawet sax dañuy xuus si ndox bi dem di entraîner billaahi parce que am na loo xam tamit mooy loolu noonu waaw amuma combat du ma entraîner non non ñun dañuy hivernaalu ñu def lépp fu ñu fu ñu entraînement fekk dañuy lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi dem defi ko soog a am jàmm waaw mooy loolu suñu yàlla mayee wér moom dañ koy def mais suñu yàlla tëddalee tamit dañ koy sante yàlla xam ne lii ndogalu yàlla la. waaw mais dama tawatoon nag amoon naa fi tawat bu méttee méttee méttee looloo tax lalu boobu tamit ganoon na si feeñ. waaw non écurie bi moom xam nga jotawu ma seeg moom ñoom kenn ñoom ñëpp laa ama amaloo jàmm gaa yëpp mafia bi xam nga mbër yëpp. waaw dégg ne ñoom dañoo téye seen licence bañ ko jugee foofu lu xew. waaw xam nga rek daanaka waaw man si leader yi laa bokkoon leader yi ñu yaakaaroon mais kat man amaana xam nga euh, catégorie bi ma jëm waaw parce que tamit am na fu nga waaw da ngay gis jour bu jour bu nekk si club sa jékki-jékki changé club parce que foofu arrangé tu ko ñu dañoo bëgg a yéeg xam nga doon mbër mu mag doon champion roi des arènes am na foo xam ne soo fa tolloo tamit da ngay day laaj nga changé xoolaat ba xam waaw ndax dina nooy am du nooy waaw am parce que problème contact parce que da am combat soxla benn pois boo xamante ne doo ko am waaw ñooy nekk yaa leen ëpp doole wala am na yoo xamante ne mooy loolu yéenay méngoo bu boobaa mooy loolu noonu. xam nga day xaw a cate. waaw yow daa l'écrit ba daa am ñu la fa neexul wala daa am loo fa gisul loo xam ne neexu nga bugg faa jóge ba ñuy téye say licence non lépp neex na ma lépp lépp lépp neex na wax dëgg yàlla ñu ngi doon entraîné ensemble musuma fa xuloo kenn musuma fa am ak kenn xaar ma yàlla wax dëgg yàlla entraînement foo kafre dem mais dafa toll foo xamante ne boobu la yaa ngi essayé xam nga coow li bari xam nga génnal écurie génnal fu écurie boobu génnal fii xam nga dem ba sa ay ay kilifa jot kilifa yoo xamante ne mënoo leen bañal. parce que soo xewlee dañ dañ ciy taxaw bàyyi seen nelaw bàyyi seen lépp am na yoo xam bañ naa ba sonn bi mooy quatre ans ma koy dégg presque ma bañ ma leen yàlla baax na mais ba sosee tamit après dañoo ñëw foqati ma xam nga am na loo xam ne fi ngay toll tamit benn suñu soxlaa yow mënatu moomatoo sa bopp am na yoo xamante ni xam nga da leen koy nangul rek waaw parce que moom xam nga ndigal moom mooy lépp suma ñun ay ndaw lañu ndigal moom waaw dañuy suñ jëfee ndigal rek daanaka amaana ñu am am lu bari